am na ñoo xam ñu ngi taxawal ay combat donte corona baa ngi fi. est-ce que taxawal nga dara. non non non wax dëgg tax nga dégguma affaire yi sorti. waaw saye ku mu ne mën nga tëgg. loolu taxawal ko du tax ma deux semaines trois mu jeex rek ci kattan yàlla yàlla baax na. mu jeexee daal. Hmm. man laaj ne est la ko jàngatal techniquement Modou Lo Ama Baldé. non Modou waaw mais fii Equivox la. voilà Equivox waaw mais li tax mu taxaw ma xam nga man damay joué rek bu xam nga Modou Lo champion la. waaw mën na daan avance bu wér. waaw mais il faut mu def très attention. moom Modou. waaw Modou Lo lu tax Balla Aïssi moom da ñeme. li tax Balla Aïssi Modou waaw da koo ñeme da koo ñeme. dundu sax. Mhm. te Modou Lo ku ko bàyyi xel di di nga jox cër yooyu. am na seen la guerre Gris Bordeaux du nga du nga daan ci àdduna. Hmm. parce que ñoom dañu ragal maanaam ñemewuñu coowu Modou Lo na ragal coowu Modou Lo. maanaam de Guiers. waaw dañoo maanaam pas ragal kii mais mais du ñu bëri ma def lii moom ma laal lii yooyu dafay wàññi. <laughs> moom ma laal lii moom ma laal lii moom ma def lii. yëkkatil micro yooyu yooyu. ah yow Balla Balla bu ñu laalee dara ci làmb doo tiit waroo tiit. non non comprendre fooy waxee du ma man may bëri ak kii euh, système noonu la waaw am na lu ma sànni moom Gris Bordeaux Modou Lo ñoo bëri spécial bi même bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu joxee Gris Bordeaux avertissement. waaw Abbas wax ni boo xoolee combat booy gendar ak kii bi jiitu waa ji sànni na ko daal mais dund ma ko a wax ni Modou Lo na daan Ama Baldé si bu wér kay mhm. a ko daan si bu wér parce que Ama dafa ñeme. te Modou Lo ñi nga ñeme ñëpp dana ah, wa ga waxuñu ko ah, lu mën a xew de Modou lañ jox. moo daal mais dama li am si lu ko may ñeme ko may waaw loolu da bàyyi ma njoon moom da moom bali boo waxee mu a a daqal moom du tiit voilà la hmm. ah, waaw ay a xam ah, man kay xaw ma ci loolu waay yow mu loo sama waay la waaw xarit nga yëg sama waay la mais comme boobu cent pour cent la hmm. ku ne mën a daan ñu ñaar hmm. lamb laa lay wax lamb nga may wax ku ne mën a daan combat boobu ok waaw ku si wax na dale na da nga fot mais ku ne mën a daan léegi ba tey damay continuer ak yow ci beneen combat boo xam tamit taxaw na muy tafaatin booy ñaaw. waaw même hmm. may may wax boobu it 100 pour cent la. 100 pour cent mooy. waaw 100 pour cent mooy ku la kii. ñoo tolloo. voilà que ñoo tolloo. non waxuma si wàllu gabari. non waxuma gabari nekk ñoom ñaar ku nekk. ci bëri 50 50 50 la. waaw 50 50 ku ku ku ne xam naa ne moom ku ne mën na daan. ku ne mën nga daan sama. ku ne mën na daan. parce que Tapha champion la. mën na xeex am na arñi. mais mais mais mais dafa neex maanaam ngarda boo neex dugg. dafa neex a dugg ci gardam dóor yi. voilà yéen maam yi maam yéen yegg fu sori dafa yomb da ko yomb. dafa yomb waaw te loolu du yoon. du yoon waaw te boo ñëwaat si sax xam naa ko. waaw ah. xam boo yeggee sa waay rek mooy mooy loolu. mbaar bu ko fa yeggee lim naa bu jaaxee jaax na. mbaar bu ko fa yeggee. ah yow loolu ngay wax bu yaasa am ba yore de. ah booy ñaar am ba yore tamit yor ay bagages de. ah. daa fi dem waxee Sénégal ba yor ay bagages. booy ñaar waaye waxee yow man sama yaay si am sa stade moo ko seexal sa yaay seex na seex Sadbu. dama juum sër Adramé. sër Adramé. papa Seex al Xalifa bi mu wàññeeku bu yàggul. ok moo ko seex amoon seex tam bab mais nag man murid laa mais sëriñ yi ñoom ñi koy ñaanal borom bagaa tan de. kon noonu mën a xëccoo di. mbaaru booy ñaata. si yéen sama combat ak Tony. waaw. Tony gis lu dara noonu tànn air bi noonu. dëgg la ak yeneen combat sax. ak yeneen combat. yii mën a ñaan sëriñ bi. malgré xaw nañu bëgg tuuti xaalis nii rek mais boo sa région rek. waaw am ndam de. déedwaay. maa ngi ko wax yow baa daa leen seeti. maa dinaa leen seeti. sëriñ ma fa ma fa. ñaan trop macha allah. na eh, solo yéen nag. sallallahu alayhi wa sallam wax nga dëgg de. Mama Lamine xam nga ko bu ma ko nag ma koy dégg rek. Garga 2. bu baax. Garga non Garga non miinu ma ko. miinoo Garga 2. waaw ah, Garga 2 Franc nga ko. Franc mooy mooy njaago bi. waaw. tey sëñ bi waaw waaw. Eh, Franc waay. <laughs> Franc moom mooy kii bébé waaw moom la mujj a daan. benn voyage dëgg la benn voyage. dama xamante loolu lu tax nga du combat itam mbir mu toll ni bébé Saloum. voilà bébé Saloum ba doon ba doon ba doon daan waaw muy toog di ko. ah wax. mu baax mu ci daan sama kanam si toog ni tourné la woon. mais léegi mais mais bu ñu bëree euh, Franc du bébé Saloum. nga wax lool. kee entraîné ñëw mais kale gën compétir. mu gën a nekk moo ko jël ab moral ngay xool ñi xam ni Franc jarul moom sëriñ sax waaw parce que boobu sax maanaam Franc daan Bébé Saloum ah lu tax nga wax lii. waaw yow kii di compété dem si mbappat fu ne lay dem di bëre entraîné ba di ñëpp Congo waaw Congo Franc gis nga yii mooy bu mu demee ndax dem. yow moom kon naa ni à tout à l'heure nga ne leen à tout à l'heure <laughs> nag am na adversaire moom Franc moom. waaye waaw Vox Arena jox nañ ko Tyson 2 xam nga Tyson 2. yii boobu combat la. ah may wax ak yow am na combat. Mm. combat bu combat la combat troisième dëgër di ci gën maanaam mu poful nii quoi mais dafa dëgër. dafa dëgër. te jàmbaar la mool la de. mais maa waaye di ko mool dafa dëgër te que xëcc bi la. xëcc mbali yaa. koy waxee. xëcc mbali yaa parce que. est bu dolee. acca. non non man kay gaa yi bëgg xam noo koy waxee rek xëcc mbaale. xëcc mbaale am doole biir. doole biir la am ñëw. ba mu see. BMZ. nu mu tudd sax. Equivox. waaw Equivox yaa. Equivox kaw ca kanam ci kaw mais attention Sidi am ngeen problème ah Sidi. Hmm. Sidi am ngeen problème lu mu tudd Lamine la xaw ma. non Lamine amul problème Lamine sama rakk la. waaw dara mais mais dama wax ne Sidi yëpp. <laughs> Sidi ñëw xool seen kaw ah. ñu ngi ñëw daal. non dafa dafa ligg dafa liggéeyam moom dafa ligg. waaw waaw loolu moom Sidi mooy seen ñaareelu tur. yow da nga am da nga kenn amul. yow damay la xoolee Bekay Mbaye. père Bekay. waaw xam nekk si ok mais yow da nga lambe si ñu lay beeg langage beeg ça va lambe quoi même boo def revue presse si foo ay moo neex foo ay moo lambe foo ay tey bam su waay <laughs> non fa la li ma wax. déggal lii waay booy gerte yàlla jëm kanam rek maanaam am taalibe laa buy jéem rek. non non wuyu ma may wax ak yow. waaw dëgg bi laa nekk yow da nga lambe. damay ñëpp bëgg sawar dafa def émission. parce que ni boo yëngu si dara nga xool ki ki ni ngi ni ngi di seetaan nga dafa émission. am na solo dëgg la damay ko mais mais ba tey combat dama si parce que Tyson 2 ñu bëri dañ na dafa mën a bëree lool mën a xeex dëgër comme ni nga ko waxee mais ñu bëri dañ na Franc moo ko ëpp doole waaw moo moo dama man lu lu ko andi fi mu nekk tollu na mbëri fu la nga fay moo ko fi mhm. Tyson 2 malgré Franc moo gën a taxaw moo kii mais man man na ko daan ok lu leer laa lay wax combat la la wax combat la ah combat tëluwul xeex loxo dafa diis kan ci Tyson 2 waaw waa xeex de te ci keppaaru Eumeu Sène la de. maa wax maa wax yow tëlul tëlul xeex. champion la. na mhm. fi mais am ku baax la Eumeu Sène. waaw man man miinu ma ko kanam mais xam na ma. Mhm. mais ku baax la parce que xol moom it xol bon xol bu la. Siteu Papa Sow. Hmm? Siteu Papa Sow Siteu Papa Sow boobu boobu boobu boobu boobu daal boobu ragal naa papa laa xaw jox tur favori rek quoi. Hmm. waaw papa laa xaw jox tur favori. lu tax maam Siteu dina attention quoi donc xaleel la mooy ñëw moo toll si dem mais na bàyyi xel na bàyyi xel papa quoi. Mhm. parce que champion la xam nga yàgg na si lamba ji. Mhm. nekkoon si équipe bu mag ber daaraam xam nga. Mhm. bari ñu bëri waale quoi. Mhm. waaw yow da ciy da ciy waale quoi bu daanoo nag xam naa ni moom yaa ma gën a xam waaw loolu la ko moo tax nag bàyyi xel bu baax. bàyyi ci xel guy gi rëg rëg. guy ah, boo noonu cinquante cinquante. Hmm. waaw parce que guy gi guy gi da daa mën bés. waaw guy gi da mën bés maa maa wax ak yow da mën bés. Hmm. nit bu mën bés la. la guddi ñu toll nii nga mi ngi compétir mais na bàyyi xel guy yu baax baax. na ko bàyyi jàmbaar la quoi guy gi non jàmbaar la jàmbaar wax dëgg yàlla ni nga seere jikkoom rek jàmbaar it gëm boppam. daa gëm boppam daal. comme Ama Baldé bi ñu xeex mu Ama Baldé si kaw seen bi seen combat bu njëkk boobu. waaw maa ngi ate. yaa leen ate wax nga dëgg. ah dama cee ate noonu. waaw si signature ba. di contrat nga daan tóoni ma laa ko tegal sees. jël jël bu rëy. mais euh, tey dëkk bi noo gisee Sénégal ni muy fonctionné nii actuellement ak jafe-jafe yeeg jàppal bàyyi. waaw Sénégal man man dëkk bi metti na tout le temps nit ñaa ngi jàmbat ba ba man gaal yow ngay mool ne ci côté géej gi ñun tamit ban message nga leen di. maanaam man su ma la waxee dëgg rek. waaw man élection yu passé. Sile mhm. APR laa sol Sile APR. Sile Albert. Sile APR. Sile APR. laa sol. ok sept heures laa génn sama kër sept heures. sept heures du matin. dama jël nit ñi si koñ yi bu ñu wooteel Macky Sall. yow mii. <coughs> barke Alxuraan Karim. lu tax nga defoon loolu. bëgg Macky Sall am ndam. am mhm. ci moom yaakaar. te Mansour Faye su lépp la wax dëgg yàlla. donte mu may jàppale mais des na man xam xam naa xam naa nu mu capable. ok waaw moo tax bu ñu jeexal naa wax si moom lu bari daal. ok waaw dëkk bi daal maanaam maanaam Macky daal war na man na man maanaam war na war na war na war na mën di lu lu jëlee lu bari daal. kat Macky waaw. da gis ne du jégale yow. non mi ngi jégale. mais mais na gën yokk yërmande bi tuuti. mu gën ko yokk mu gën ko yokk parce que Sénégal dafa am benn réalité bu ñu gëm ñun dañu bëgg ni ko am mhm. loolu day suyee day suyee si moom moom la ma ko fal Macky Sall lu ko fal. ah bi nga Abdoulaye Wade génnee gouvernement bi. nga ne ko passeport am. waaw Sénégal yëpp du xeex ko. Mhm. Sénégal moom mu bëggul mu bëggul injustice bëggul. maanaam bëggul doole daal waaw ah, bëggu ko. kon moom bu ñëwee bëgg bëgg dëggal loolu rek. Mhm. ah day xaw yow kon euh, jàppale ba nga ko jàppale woon amoo loo ciy rëccu wala am nga loo ciy rëccu. non non man xaw ma Macky Sall. Mansour Faye élection yi pass ñoo àndoo di añ ñoo àndandoo ñoo def loolu lépp. dama campagne maa ne maa ne animé bi te laay wax. Mhm. barke alxuraan. ba tey yaa ngi koy gis wala. ba tey noo gën a gis gën a gis jour élection gis est-ce que kon du liggaay wax ne yéen élection bu jotee politiciens yi dañuy ñëw jox leen xaalis utiliser leen su passé ñu bàyyi loolu loolu xam nga Babacar est-ce que du noonu la demee dama bëgg su mbokk politiciens yi ñu bàyyi xel ñu bàyyi nga jégal ñu bàyyi xel yow tub la sa raayiru lu muy tekki fa maaloo mi xawante wala naasiri mhm. mooy bis bi ñu tegaat kese di léegi lu waaye mën def mhm. kon yow man xëy am daan ko tegaat sa kanam nga d'accord moom nii ñu lu am fii rek. dañ koy amaat fële. boo déggee yombatul sax dafa maa ñu wax bis bi noo génne ñaaw moom nii ne jàkkaaroog sa keset bu boobaa kenn si daan kenn ne sa bopp dana dana dana. dana la doy doy. ak bi akamin akamin lu waaye ati di nga ci atewaat. alay salaahu. bi akamin akamin. akamin si watini. ci watini yàlla mi ngi laaj man an man yàlla kan moo ma dàq ate. loolu laaj foofu. waaw man lu waa ate fii lu ate fii. da nga atewaat kon de attekat yi moom. waaye boobu si foo ma toll yàlla yàlla dañu bind nii rek pour lu waay newee def yàlla amul jot boobu sax rabbana maa xalaqta asa baatilan nee na bindu ma dara si neen jot koo ngi di bind nii rek nii <laughs> bind rek am am am na njëriñ. Mm-hmm. maa la wax loolu. kon daal ay yow ma isin tu addisu axbaaraha. yow ma isin. tu addisu axbaaraha. axbaaraha bi anna rabbaka awxaana waaw. yow ma isin yasduru naasu. astaatan li yaraw gis yaraw ahmaalahum. waaw fa man yaxmal misxaala zarratin. waaw loolu jëpp si li tuuti tuuti daanaka fay. mu ne lu baax lu mu tuut tuut daanaka fay maanaam mooy bi bi si kër di wax tey tàngaral maa jëloon lii loxo nan maa duggoon fii nga naan waa yow yaa ma seet mun la ki ma bind moo wax loo. moo ma wax loo. maanaam nit ñi am solo te ñun bis bi nañu mujjee. la gaa yi lu mbaaw kat lu ma bëgg bëgg mu man reporter lamb man def def presse. bu hmm. ma ko denc ba dama ko wan gannaaw de. ko wan gannaaw. Hmm. sa jëf bàyyi xel sonnet bu baax xam ne ñoom ñoom li ñuy seeraan ñoo fu nekk nekk suñu ay kilifa te ñu li ñoo si presse kon nañu defal seen kàddu di wax nit ñi lu ñuy def solo am na politiciens yu diiñ ah. Hmm. am na ku ku wax Larumaar la nekk. Longo Larumaar. Larumaar ñu gën xam si Doudou Baye Gueye. waaw mais Larumaar moo gën a siiw. Mhm. sama la. sama lama ji passé ma ku baax a ngoog. Mhm. bu génnee oto bi taalibe dañ koy dogale mu gaare. Mhm. génn xaalis seddal leen. li mu gën ay mooy nga am dese wala yooyu day ñëw jël xaalisam dimbali la ku baax te pourtant politicien la. mais dafa diiñ di def lu baax ak ñeneen Latir Fall comme noonu la mel ku baax la. ok gendar la nekk. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen ndax ñëwoon moo leen fi du ma jóg. Mhm. xam bu dee jeexal émission bi bu ma gërëm naa la naa la kii am na solo léegi kay dañuy tàggoo. waaw léegi looy tàggoo amee émission gàtt na ah déet xasaa amul sa gi tax na quoi. non non gis nga gis nga <laughs> ko daan la dama yàgg si émission ah? yi tamit. ah saa loo bëgg loo loo bëggoon waxaat defaat ko. non graaw gërëm rek ñi ma bëgg gërëm rek am problème. Ah? da ñu bëgg gërëm rek. am problème ñoo far. non déet man kay xam nga yow da sama waaye te fii moom sa kër la. ah dëgg non fi laa bokk léegi. waaw jàppal ne Equivox moom. la bokk sa Equivox la yow. Mhm. waaw moo tax ma ne la loo bëggoon wax te fàtte ko rek. dëgg la waaw li waaw li ma bëggoon wax te fàtte ko mooy. Mhm. maanaam li ma li ma li ma sànq laay dellusiwaat tuuti rek. mooy avant may tàggoo. waaw mooy ak Abdou Aziz Ndiaye. suma xarit. Mhm. maa ngi koy jaaree si Balla Gaye 2 suma copain suma nit. di nuyu soxnaam bu li bàcc li mu nekk baax man daal Babs. man mm. daal oto laa bëgg su ma ñëwee Dakar ndox samay soxla. Mm. waaw loolu moo intéressé na ma trop. Mm-hmm. waaw nag ñun doomu gën daal xamuñu tàllal loxo mais am na droit am suñu nit ñi nga bëgg li leen bëgg. ok daal oto ngay ñaan Aziz Ale. waaw ak Wally ak Wally kon. Youssou Dieng dégg ak borom Mbacke Ndeye Mbacke Bell Wally Wally Wally Wally nu nga waxee noonu. la Wally. Mbacke Ndeye Mbacke Bell waaw ñu extraordinaire. nga <laughs> <laughs> nga ne nga ne lu lu waali wax noonu. Ah, lu nga wax noonu bu garaaw sax. Ah. waxal waxal man kay dama. wala Ndiaye Mbacke Bale. Ndiaye Mbacke Bale. mais Wally c'est extraordinaire. c'est mais Wally mën nga way trop mais ñi lay musigal. Ah, ñi lay musigal Wally kenn du ñoom. non oh, c'est extraordinaire moom moomu daal Mbacke Bale boobu. waaw kii ak. Oh. c'est extraordinaire. ñoom Cheikh Ñaan seex Ñaan ay booy malien bi defe naa moo war guitare. non Wally Wally xam nga Wally tam naaraan amoon. mais ñi ngi musigal naaraan kulli fët yi waaw musique moo neex. dégg woy Youssou Ndour bi mu reprendre fan yii. ñu ngi la boobu. non waaw soam la waaw mu ne ma. kooku Youssou Ndour waaye Wally dafa reprendre woy Youssou Ndour waaye bu nu mu tuddati hélas fàttali li la war bu Youssou Ndour boobu waali way waaw ah, mu ne lu nga ne nu ko waali déglu ma ko nag dégloo goo ko waaw ah, boobu sérieusement ma ko ah. man nag fekk xam xam man saar laa waaw nu ma loolu la nga fekkee <laughs> te wax man daal ñulub na la moom boobu naan pëp pëp pëp pëp non c'est extraordinaire ci boto bi waaw nañu xalil mbeel mbakki mbeel. ndeysaan. <laughs> doo war ci extraordinaire. nguuda Amina nag. nguuda Amina Maysa Amina. waaw waaw Baba Amina yooyu. non waaw gis nga yow naka lay <laughs> non non vraiment mën a way na. loolu neex na de. ku ne ku ne mu lay digalee si Ndour. waaw. ay dama doon n'importe qui. ci. sant yàlla rek. macha allah bas nan tàggoo nag wala. waaw bu la neexee de. Hmm. looy looy tàggoo. ah ah, ah xaw a xibaar ñu ngi gën a bëgg a lekk lekk. waaw waaw. sëñ wala. Guet Ndar ceeb yaa ngay tooy mbaa. non Guet Ndar ñun ñooy borom ceeb da koy da koy yëngu wax. waaw tàkkusaanu Ndar. Hmm. mais mooy Ndar. tàkkusaanu mooy mooy seggerment bi dem lu fay xew. di daagu. waaw ñoo yooyu macha allah Ndar moom yaa ma gën a xam. Hmm. man dëgg yaa ngi géej yaa a xam boobu pont yaa ngi macha allah. président dëkk bu neex la vraiment dëkk bu neex la. waaw première capitale Sénégal. man da naqari. déedéet léegi looy tàggoo Guet Ndar. waaw li may tàggoo mooy sama xarit bu baax muy kan. mag la muy Ibrahima Diop notaire. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Sadibou doomam di nuyu Mouhamed. vraiment damay jàppale bu baax a baax a baax maa ngi ñaanal bu baax yàlla jàppale leen te liggéey. Mm-hmm. xam nga yàlla yombal seen lépp daal kontaan naa si ñoom daal si ñu may jàppale daal. Mm-hmm. Pape Sylla aussi commerçant. Pape Sylla bois. nar la nekk foofu di jaay bant kii ma la paasoon léegi nii. moo mooy jàkkatu bant yi. ku baax la damay jàppale bu baax naa la boole moom mu lay jàppale sax. ah war na waaw war nga caa gaaw de. waaw naa la boole ak moom mais mais mais ba ba ñu tudd sa émission bi. bii. <laughs> yow gerte wax si wax si. ki ci wax si mais ba ba mais mais sa waay kii foog nga de. ah yi na la jox lu. maanaam ñu may ka ka mooy DG bi. DG day mu mu ngi mu ngi da dafa dafa liggéey de. waaw dafa liggéey mu tudd. Alioune Badara Diouf Alioune ki wax jaayi laama ba la ko yàlla ma mais ah. mais bu ma gars yi nan nan la fonk ah. ñu fonk ma nan la fonk bu baax xam naa li ma la wax. ak kilifa gu mag. ki ku am na koo xam ne moom moom nangut ko turam hmm. moom mooy kilifa gu mag gi ne wa wanee ko kilifa gu mag gi rek moom mu ngi làqut ah, gi yow tamit yow laay waxal quoi kii suma waay suma lépp la ku baax la waaw te moom lamb ah, kuy dund ku nekk rek da nga seetaan Babacar maanaam a ah, public wu ndar la bëgg maanaam di gërëm public wu ndar amee naa leen njukkal bu baax a baax a baax hmm. foo dëgg lamb ñu bàyyi lépp ñëw dëgg tikki ba mu fees hmm. stade Madi Wade bi stade bu ndaw dëgg la lamb du ma tëgg xëy malgré amul sponsor mais du ma am benn mbër bor sant yàlla bu baax maa ngi gërëm bu baax di gërëm suma waa quartier waa Guet Ndar di gërëm Xaadim Fall suma rak suma xarul benn bakkan doom ma wàññeeku bu yàggul waaw nu muy gaañoo noo sot quoi maa ngi bu baax di nuyu waa yaraax bu baax a baax a baax a baax mhm. di gërëm koo xamante ne kooku moom foog nga ko bu baax muy Larumaar ma la waxoon moom da siy jàpp bu baax mhm. di gërëm sa tamit euh, Pape Samba Ly mhm. waa di gërëm ins mooy wàllu sport si ndar maa ngi gërëm bu baax maa ko meng président CNG bu ndar maa ngi koy gërëm da siy jàppe bu baax gërëm Latir Fall bu baax itamit Ibrahima Fall pif booy Mansour Faye la mooy mooy directeur Crous Crous mi ngi dégg mhm. ku baax da siy jàppe bu baax a baax mhm. Alioune Diop moom gisaguma ko mais moom mooy directeur OLAC quoi maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Badaraka Oli Amara Travalé suma lépp la ñoo mhm. mu gendar ñu koy béggee bu baax di tuut di tiitaru gendar Amara maa ngi bëgg wér di nuyu waa Ndar yëpp di leen nuyu yow di kontaan si waa Vox TV waaw format di leen bëgg bu baax xam nga maanaam site bi yàlla dem ba nekk waxuma Sénégal mais meilleur site du monde

jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa di nuyu képp koo xam ne tamit yaa ngi yore micro di wax rek yàlla la yàlla defal jam defal la ndam ak réussite la nga xam ne nii moom nga téye di wax ne que ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay on est ensemble ñoo far Gomis ba beneen yoon incha allahu rabbi